mais lan moo tax nga jàpp ne euh, engagement yooyu ñu jël mënuñu ko matérialiser. mais mu ngi nii matérialiser ñu ko ba tey du premier bi dafa bëgg ay pouvoir yow wax nga ko ba mu ngi koy ba mu ngi koy def te jotu ko xam nga ki yàkkamtee togg añ togg ceebu jën amul ceebu jën bay togg xeer ko ko jox ceeb mu togg c'est aussi simple que ça c'est pas c'est pas yombul et ba pare moom ci boppam dafa dafa tàmm commandé. dafa tàmm commandé. waaw premier ministre baaxul. ah si mais oui oui baax na commandé c'est très bien d'ailleurs jox nañ ko ay ministre mu commandé mais dafa am koo xam ne ki mënu ko commandé. kan la mënu commandé. président ki mu daan yónni. ki mu daan yónni naan ko demal fenn représenté ma telle réunion. loolu moo changé il faut qu'il apprenne à être le second de celui qui par parmi ses seconds. parce qu'il ne sait pas être le second. ah je ne je ah c'est, pas attention c'est très difficile pour un ancien primo d'être second. jàpp nga ne il a ah, du mal seetloo ko yéen yi. jàpp nga ne il a bu ñu la bëggee takkal wu bu ñu la bëggee takkal nooy def. ah <laughs> bu la bëggee takkal ji nooy def. damay nangu. <laughs> <laughs> may mu ne man ngay waxal waay. damay nangu mais euh, da nga jàpp ne ci ni nga ko gisee. Euh, il a du mal à accepter li nga xam ne moom mooy sa fonction nominative. je, ne n'ai pas dit qu'il a du mal à mhm. accepter j'ai dit il a du mal à vouloir accomplir des choses qui ne sont pas de son ressort ci loolu tool loolu la ñu doon waxtaanee sànq itam yaa yow yaa posé question bi te parce que da nga ko dund laaj ma ko bi man ak yow déplacé guñu nañu retourner question bi ba loolu disparaître il faut que ku nekk rester à ce qu'il doit faire et voilà la maison sera Alors, bien gardée. Alors Premier ministre met en œuvre la politique de la nation définie par le président de la République. Très bien. ah totalement d'accord. ci donc bu ko appliqué. à Ousmane Sonko. oui fan la entorse am. lu am entorse président de la République na ko jox les moyens bu fekkee ne moyens yi jël ay pouvoir jox ko ko la na ko defal. oui ku togguloo nit jox ko dépense. donc bu bëggee li mu bëgg moom président président de la République bu fekkee ne dafa laaj mu jël ci ay pouvoir yi nga xam ne mën na ko joxe joxe ko il n'a qu'à le faire bu boobaa il sera soumis au résultat mais na garder aussi benn pouvoir bi nga xam ne moom la am bu ko dara indi buñ ko bu mu deñ mooy son pouvoir de nomination du premier ministre non non du premier ministre et c'est le retrait de sa confiance bu ko ñàkkee musiba am. ah euh, euh, moo tax garde ko baax laaj ko Abdou Diouf ak Jean Collin il a fallu devenir au bureau un, un matin et puis c'est terminé hein, quand le quand le grand patron est rentré dans son bureau même son téléphone ne marchait plus pour la première fois il s'est levé pour aller appeler son secrétaire pouvoir noonu la pouvoir président de la République la nit mënul xëccoo boo déggee ñaan président diw daf ko yëpp nangam nangam dafa am fu mu ko laax laa ilaa bu la yàlla réeree rek seet ko ci président de la république am beneen